Malick ñu ngi bu wér di nuyu géwél di nuyu champion bi muy dajeel Tidiane Faye di nuyu président Babou di nuyu Mara di nuyu monde daal yëpp di nuyu Sour Fall bi muy jàkkaarloo muy menacé euh, grand Malick nag euh, yaakaar naa drapeau bi Assane def comme ni nga ko waxee rek suñu drapeau la ñun ñëpp li tax mu nekk suñ drapeau ñun ñëpp mooy dañoo xam Pape Abdou Fall mi jël drapeau bi ci élégance am ci vraiment bëggum bëgg ay doomam ay rakam ay jarbaatam ay xaritam mooy ñun ñi nga xam ne ñoo ne ci làmb ndax yaakaar naa moo ñu mag fuuf te teewul lépp am wala lépp lu muy def nañ ci laaj xalaatam wax ñu loo ci bëgg nuñ ko bëggee rek noonu la koy defee yaakaar naa kooku ku joxul cër doo ko def te su ko neexoon mu ne ñi duma seen ay moroom loolu àndandoo maa ñoom ci dara du ma leen dénk dara mais xoolul loolu ci élégance am ci kattanam ah, ak dooleem ak yërmandeem ci la jëlee ay rakkam ak doomam foofu leen di leen jàppale kon duñ jëf buñ ko jël drapeau vraiment bu asan def drapeau ñu bàyyi ci nit yëpp ñëw teew ndax wax dëgg yàlla ba ñuy ànd moom ba tey rëccu ñu doon ànd ak moom ndax modèle la référence la ci ñun ndax nit koo xam ne ne heure boo àndee ak moom lu baax lay wax lu baax lay def yëkkati ay teraanga di jàppale doomu aadama yi kon yaakaar naa ñun jàng rek la ñu wax def ci moom roy ci moom ba yaakaar naa lu bay suñu comportement dina changé ndax moom modèle la te référence la ku mel noonu na tey ji yaakaar naa bu ñu jiitee duñ mën lu sant ko yàlla bu baax a baax di sant tamit monde lamb yëpp di sant njabootam yëpp di nuyu njabootam yëpp sant Assane Ndiaye bi nga xam te ne dañ moo def lii ndax vraiment initiative bi rafet na xalaat bi rafet na te it ki mu koy def mérito na ko te it ki mu koy def moom moom li mu ko jox kon yaakaar naa nañ jox ñëpp rendez-vous incha allah la trois incha allahu rabbi ba maar jóg ñun ñëpp nañ teew ci kàttanu yàlla di ñaan yàlla Assane lépp lu mu ci njort euh, rek waaw lépp lu mu ciy jublu rek suñ boobu defal ko ci lu kawee loolu lañ koy ñaan Assane ndax vraiment ses bi rafet na et puis ses suñu abul la jërëjëf am ni léegi mu mot trois semaines maa ngi ak ñoom di leen masaw parce que collaboration yombut euh, di baalu àqit waa élevage parce que dañu commencé woon seen défilé kii kan la sama yaay maire Fat Ndiaye waaw kii moom suma yaay la Fatick la nekk kii kilifa la nekk ci groupement de promotion féminine gis nga leen lii mooy Sénégal ñii ñu nga ne ba Kaffrine ñëw participer ci fiara bi ànd ak ay njabootam waa Casamance a ngi fi waa Sédhiou waa Kédougou étranger yi moom ñëpp a ngi fi di gërëm champion yi fi toog di gërëm suma xarit yi sama njaboot gi nga xam ne ñoo fi teew di gërëm it Assane ci teraanga bi ma defal mook fàllu di gërëm képp koo xam ne rek yaa ngi ci làmb maa ngi lay gërëm di la sant di ñaan yàlla bis bi yóbbuñu ci jàmm xam nga yàlla moom dafa yéeme ay mbir da ngeen toog fii léegi suma benn xarit ministre de l'élevage di ma woo ma ni ko ñu ngi def concours bi mais dañ ma tuddee drapeau mu ni ma wóor na yàlla bu ma fekkee ndakaaru le trois maag yow ànd ma ni ko loolu amul problème tey du doon moom kot incha allah bépp xarit bu ma am ngay kilifa ci réew mi danaa ànd ak yow ñu jiitle bu neexee yàlla ànd ak yow ñu dem ci bis boobu di ci woo nag képp kuy promoteur jiital ci aussi suñu mag Gaston Mbengue Luc Aziz Dieye képp koo xam ne rek yaa ngi ci làmb ñu ngi lay woo ci bis boobu ensemble ñu dem euh, honoré li nga xam ni suñu frère suñu nawle Assane Ndiaye moom moo ma ko tuddee may jël nag bis bi yëpp teg ko ci monde élevage waaw dama jëlaat drapeau bi ñu jox ko képp koo xam ne yaa ngi yëngu ci élevage yéen ñiy défilé Kocc Sangomar bis bii ñu ma tuddee dama ko jël teg ko ci seen loxo donc ne élevage bi yëpp mobilisé wu incha allah le 3 ñu ànd dem Iba Mar Diop waaw fan la nee nañ nag arène nationale la kooku nag beneen mbir la waaw incha allah waaw koc euh, Sangomar xam naa ni jëwrin génn na mais maam Ibrahima mu ngi fi na ngeen jàpp ne biis bii ñu ma tuddee seen bis la képp kuy yëngu ci élevage suma xarit ministre de l'élevage Ali Sale Diop hmm. léegi ñu ngi doon jokkoo mu nga ci àll bi hmm. nee na mu ngi préparé élevage mais bu ko fekkee dinañ fexe tout ñu ànd ak ah nee na puus waaw donc euh, mbir maa ngi noonu waaw maa ngi ni nag toog ak sama yaay ji nga xam ni Kaffrine la jóge xaaral euh, ma jox ko kàddu bi mu wax ak yéen maire Fatou Diouf waaw yéen nag làmb gis ngeen nii ngeen def lii laay bañ boo leen dikkee rek perturber ñëpp bëri ngeen bay rek goo xam ni loo leen fekk yanu ko yóbbu waaw ñu gërëm ñëpp sant ñëpp Assane nag comme ni ngeen ko xamee mook Fallou bi may mujj a tëgg Siteu ak Papa Sow dañu jël seen ay sit mettre ko à ma disposition muy benn reconnaissance boo xam ni mënuma leen fay du ma def lu dul ñaanal leen yàlla waaye lépp lu ci doomu aadama ñoom ñaar nekk maa nga ca biir luñ ma yëgalul it baalu ma leen di ñaan nag que le eh, drapo gaynde nag ngeen di bëree ah man dama leen di wax benn mbir de gaynde ngeen di bëree waaw. di nuyu Thiam CNG di nuyu Tidiane Faye ak Kéwén di nuyu mon ami mon frère Pape Abdou Fall. di nuyu Fallou Ndiaye sama frère di nuyu képp koo xam ne yaa ngi ñuy seetaan mais Malick boo gisee ñu def lii euh, prési daf ñu yàgg taxaw yàgg ñu jàppale ci lépp suñ amee bis da ciy dem ba jeex gën ñu ci sonn ñu ne nag il est temps ñu delloo ko njukkal li muy daj ci doomu aadama yi ñu wan ko sénégalais yi ne kii mérito na ñu delloo ko njukkal wallaay bi ma defee affiche bi esthético ñi ci bëgg bari na lool koo wax mu ne kii de lii ngeen def drapeau bi yelloo na ko macha allah wallaay lazim ñu am ci mbégte samay mbokk ba ci sama yaay wallaay azim da ci kontaan parce que day dégganteeg man di dégganteeg Pape Abdou donc lii daal dañuy ñaan yàlla mu àgg ci jàmm yéene nañ ko wallaay azim lu dul lii que jàmbaar la te ñafekat la te gëm na boppa boo àndeek ay ndaw nag di leen xiirtal sa bopp Malick amuñu lu dul làmb ji mu nekk teraanga ñu jël ko jox ko ko côté bu nekk nag taxaw nañ ci kon bu ñu amee bis bu mel nii dañ ko koy delloo njukkal sénégalais yi xam ne ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi Fallou njaay aussi di ci dox lu nice nekk jàmbaar nekk nit koo xam ne aussi ku gëm boppam ñu bokk li ñuy def maanaam daal waaw salaamaaleykum gannaaw bañ sant yàlla julli sama xam sant ñaari waajur di nuyu sama tonton euh, Malick Thiandoum jëlal bële di jëlal bu mag bi ma teel la yeneen voilà waaw di siyaare Sénégal yëpp rek di ñaanal jàmm di ñaanal jàmm a a comme li nga wax rek li nga tëjee ñu bi jàmm moo ci xaj dañuy ñaan yàlla yàlla wàccee fi ndox mu sedd bu baax a baax baax parce que jamono ji fi ne changé na changé koo xam ne jamono ji lii war na fa war na jug VRF yeeg yooyu yëpp wax nañ ci nañ ci dimbale ngir yàlla parce que fi mu nii Sénégal ñu ñoo ko bokk benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar dëgg la waaw loolay problème ñi ñaaral ñëpp jàmm rek di nuyu waa axlu làmb di ñaanal ñëpp jàmm jërëjëf Malick nga wax ci làmb ji lu tax tey Assane woo la ni la kéwal laa la bëgg a jox nga ni ko na ñëw lu mu gën a diis gën a saf gën a nekk ndaw gë bëgg na Malick dimanche boo toog bëréwo ko yaa ngi perte dimanche boo toog rek bëree ko yaa ngi perte te Kewel mbër la ndaanaan la suñ suñu doxee suñ ko combat maag moom bu Assane Ndiaye d'accord ak Max rek dama ne ko amul benn problème noonu la demee. Mhm. ndax xam nga bu baax adversaire bi nga jël. waaw non loolu amul important si man man li am importance man li ma yor laa xam. Hmm? waaw. professeur ndax da ngay jox leçon de lutte ki nga xam ne mooy kéwél le 3 juillet ci bés bi ñu tuddee Pape Abdou Fall. waa ñi ngi ñaan rek ñi ngi ñaan bu bés ba yàlla ànd ak ñun defal ñu ndam incha allah bés bi ñu tuddee Pape Abdou Fall loo wax. waa sant rek Pape Abdou Fall moom day liggéey ak sama patron di waa ONFP di Souleymane Soumaré xam naa ne sax tey dañu ñëwul samedi samedi bi fii nii waaye ku ne xam ne ñooñu de moo fa amoo samay liggéey foofu ma koy woo si combat bu baax Pape dañ koy gërëm du ko sant. parce que bi gars yi jaaxle si leader yi euh, promoteurs yi moom lañ gis mu ànd ak ay rakam ñoom Assane Ndiaye ñoom ñoom ñëpp daal. Mhm. kon dañ koy ñaanal jàmm ñaanal suñu bopp jàmm ba bés ma di woo ñëpp rek. ci combat bi ñu jàpp ñu bu baax a baax di ñaan sax di woo sama patron Birane Ndour mu ñëw jàpp si bu baax euh, Souleymane Soumaré maa ngi koy jaare di ko ñaanal mu ñëw jàpp ci combat bu baax ñi ñaanal ñëpp daal di nuyu nag sama maam Alioune Sarr mi nga xam ne moo fi jógee di ko wax mu jàpp ci combat bu baax di nuyu sama mbokku séeréer Tidiane Faye naa sim naa nu jookaanu na njàll layaa nun koy nun ndamtaan no combat si nekk mi fa kéwél feek in da maa fi ngolo jom ngolo xaj incha allah rabi région de Fatick département fof commune Djilor fof mais xeɗa nuun nu ndam taam combane bo in maafa kewel jongoño xaƴ daal wax kewel mi toog waa kewel dañ koy ñaanal jàmm rek ñaanal suñu bopp jàmm bis ba lay am bis yàlla moo ko xam dañuy ñaan te jàmm sabablu lu am ñi ngi lu dañuy ñaan yàlla mu ànd ak ñun si bis ba incha allah rabbi hmm. dafa saf dafa mën a xeex ndax Tidiane Faye ñi mën a taxaw raak ak kewel mii ma gis nii Malick bientôt ma bëre 30 combats musuma bëri ku tolloog man yow seetaan nga ma ñaa ñaatoon nga ma langam. laa ilaaha illallaah kon kon kon kon daanaka man du ma ne adversaire du ma minimiser adversaire du ma xel dama koy nangul li mu yor. Mhm. bu baax a baax a baax a baax ku ma jox cër la nag. Mhm. ku ma jox ku ma estimer la. parce que doomu aadama olof Njaay mi wax ne wax sa mbaax waay. du mhm. wàññi sa mbaax dara. bu amuloon qualité doo ko jël. non non non non non non ba pare yar gi nekk si moom kere leen ak leneen leen. nañ yem foofu daal. jërëjëf jërëjëf. siyaara bi nag dañ koy sept ans dañ koy prolongé. ma jóg. waaw ministre Matar ba moo ma ba moo ko doon woo léegi. nee na man lu ma nekk ak lu ma moo cay nee na ministre Matar ba nee na loo xewle maa ci jiitu bës bi sama bës la. jaa ngeen jëf. merci ah, ñuy gën rek ñaaxaat jeunes yi parce que ñi ci ñàkk seen bakkan démb ñu ngi leen di jaale seen ay waajur di leen ñaanal yàlla xare leen ajana ah loolu du lu gën cim réew. kéwél yaa ngi ci bës bu rëy. waaw bisimilah rahmaani rahiim alhamdulilah. xaaral ndax gaa yi dégg mu. waaw cinq minutes. alamin ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi nag ñu ngi sant ñaari waajur bu baax. waaw di sant Sénégal di ñaan yàlla Sénégal jàmm yàgg fii. waaw di sant le promoteur Assane Ndiaye di sant Pape Abdou Fall. di la sant père maa ngi lay sant père Malick di sant Seydou di ñaan wér di ñaanal sama adversaire wér ba le 3 di ñaan yàlla ndam ci kawam waaw. mais adversaire bi nga jël adversaire bi nga jël. Mhm. ah Tidiane Faye ñu koy wax le professeur de Lansar di ndaanaan lool. Mhm. jël bu ne daan na ko fi mbër man de keroog ba mu daanee Jaguar ca Kaolack damaa yuuxu. xaw ma jël boobu ba léegi mënuma koo qualifier ndax xaw ma nu mu tudd. façon bu nekk daan na ko. tey ñu jox la mbër mu am expérience macha allah mbër mu mën a bëre âge macha allah jiitu la ci làmb lu tax nga accepté bëree moom. no comme li ma wax rek waaw ndaanaan moo neex a bëreel. Mhm. dama xam ne tiijaan ndaanaan la. te dafa am qualité yoo xamante ne dafa ne siman ci wàllu bëre feeñul moo tax ma bëgg a jël Tidiane Faye mi mhm. pour wane ko ci. kon doo taxaw xeex ak Tidiane da bëgg a bëreeg moom ndax li ñu ni daa mën a bëre. non combat bi duma ci xeex. ah waaw damaa bëgg a ñëw wane bëre quoi. parce que moom daanaanu bërekat la bu ñu koy wootee la professeur waaw léegi looloo tax ma bëgg koo jël wane ci sama bëre. bés bi ñu tuddee Pape Abdou Fall loo ci wax. ah yee waaye mm-hmm. gis mm-hmm. waaye kontaan si bu baax Pape Abdou Fall wax dëgg yàlla moom mbaax la ñu nga xam ci moom man moom. vraiment mosuñoo déggante téléphone wala dara mais itam wax dëgg yàlla lu baax laa mos a fekk samay grand di wax ci moom ay ñoom Assane Ndiaye. Mhm. ay ñoom grand Bada Dione xam nga lu baax daal laa xam ci moom. Mhm. ñu ngi koy ñaanal daal lu mu bëgg lu nekk du xam yàlla na ko yàlla.